alhamdulilahi rabbil alamin waliyi saalihin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma baad mbokki julliti maa ngi dénk sam bopp di leen dénk ragal yàlla subhaanahu wa taala mooy dénkaane li yàlla subhaanahu wa taala li fi jiitu ak li mujj ci ay xeet ginnaaw loolu ñu xam ne bokk na ci ngëneeli yàlla yi yàlla subhaanahu wa taala defal xeet bii di xeetu lislaam mooy daf leen def ñu nekk xeet woo xam ne wu digg doomu lañ ci seeni mbiri diine ci lépp ci seeni mbiri diine moom yàlla subhaanahu jox leen ci xam-xam ak ci xel mu rafet ak ci maandute ak ci rafetal loo xam ne joxu ko woon benn xeet ci xeet yi nga xam ni jiitu nañ wala mujj nañ loolu moo tax ñu nekk xeet boo xam ne bu am équilibre lañ bu digg doomu lañ ci seeni mbir nekk ñu mat ci wàll yépp mat googu moo tax ñoom ñooy seede ci yeneen xeet yi bu ëllëgee bu yowmal qiyaama ndax seenuk maandute ak atte gi ñuy atte dëgg moo tax boo ëllëgee ñoom ñooy seede ci yeneen xeet yi ci des ñoom ñooy atte ci nit ñi waaye amul ñenn nit ñoo xam dinañ atte ci xeetu lislaam mooy xeet wi nga xam ne bu dëppoowee ci dara ne lu baax la loola lu baax rek lay doon waaye bu dëppoowee ci dara ne lu ñaaw la lu ñaaw rek lay doon yàlla du dëppale xeetu muhammad alayhi salaatu wasalaam ci loo xam ni dafa safaanoo ak dëgg asama allahu ummati an tajtamia ala dalaala yonent bi alayhi salaatu doon wax naan xeetam di leen wax naan leen yéen day yéen ay mottali juróom fukki xeet yoo xamante ni jiitu nañ ngeen ñëw mottali leen yeen ay xeet bi ci mujj na am waaye yéen ay xeet ba ca gën gën caa tedd gën caa màgg fa yàlla subhaanahu wa taala mu doon wax itam ba léegi ci beneen xadis di wax ne ñun xeetu lislaam day ñooy ñu mujj waaye ñooy ñu jiitu ndax ci ñëw ñun ñoo mujj waaye ci ngëneel ak ci raw ñun ñooy ñi raw ndax ñooy njëkk a dugg aljanna ndax yonente bi alayhi salatu wasalaam mooy ñëw jiitu ak xeetam sàkku ñu ubbil ko bunti aljanna mu tijji ginnaaw ba ci la yeneen xeet di soog a dugg ginnaaw bu mu duggee moom ak xeetam alayhi salatu wasalaam mu ne donte xeet yi nga xam ne ñooñu fi jiitu ñoom lañ njëkk a jox téere ñoom lañ njëkk a jox diine itam ngëneel gi ñu yàlla jox yàlla joxu leen ko ndax yàlla daleen joxoon diine ñu ne ca wuute ci seen biir ci mbaax ak njub ak dëgg ba loola yóbbu leen ci sànkute yàlla subhaanahu wa jubbanti xeetu lislaam wan leen yoon wi nga xam ne mooy yoonu njub ak yoonu mbaax moo tax yàlla subhaanahu wa di wax ne ñoom xeetu lislaam ñooy xeet bi gën boo xam ne yàlla génn na ko ci nit ñi dañuy taxaw ci di digle lu baax di tere lu bon gëm yàlla subhaanahu wa taala loolu mooy seeni melokaan yàlla subhaanahu wa baaxe xeet boobu jagleel ko téere bi gën bi gën a màgg ci téere mi gën cee matale ci ci ay njàngale muy alquran yàlla wàcce ko ci xeetu muhammad alayhi salaatu wasalaam yàlla yebal ci ñoom yonent bi gën a tedd ci yonent yi muy mujjëg yonentam yi di muhammad ibn abdullah alayhi salaatu wasalaam yàlla jox yonent boobu xam-xamu ñu jiitu woon ak ñu mujj yàlla jox ko ko mu indil ko xeetam jàngal leen lépp loo xam ne lu baax la lu ñu war a xam mu jàngal leen ko teete leen ci xamal leen ko moom yonent boobu alayhi salaatu wasalaam la lu safaanoog lu baax la mu xamal leen ko moytandikuloo leen ko wax leen wan yoon la ñuy jaar ba mucc ca jógewul ci àdduna bi mukk moom alayhi salaatu wasalaam lu dul ne teg na aw xeetam ci yoon woo xam ne yoon wu leer nàññ la yoon wu jub la yoon wuñ xal xal la ba mu leer ka cay teggi tànkam di jeng rek mooy ku yàlla namm ci moom alkande xeetam di xeetu lislaam njàngale yu mat yi nga xam ne wacc bàyyee na leen ko jox na leen ko tax na ñu mën a doyloo loolu ba bañ a soxlaati di dem ci keneen di àbbi ci yow lenn ci say doxalin ak ca sag nekkin moo tax soxlawuñu di dem di jubbanti ko beneen xam-xam bu bokk ak xam-xam bi leen seen yonente alayhi salaatu wasalaam bàyyi loon ndax lim leen jox ci njàngale lu mat sëkk la laata ma fiy jóge yàlla subhaanahu wa taala xamal nañu ne njàngale yooyu muy di njàngale diine moom yàlla mataloon na ko al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum nicmati wa raditu lakum al islaama yàlla gërëmal ñu lislaam mu nekk diine yàlla matal diine ji mottali ci xeetu lislaam njubam ngëneelam bi nga xam ne xéewalam bi nga xam ne mooy xéewali njub yàlla mottali ko ci ñoom kon diine ji nga xamante ne yonent boobu alayhi salaatu indi na ko diine ju mat la dafa mat ci fànn yépp mat ci wàll yépp dafa nekk diine joo xamante ni itam dafa matale dafa mat ci jëmmi boppam ba noppi matale ndax bàyyiwul benn côté bàyyiwul benn wàll ci dundu doomu aadama lu dul ne diine jooju làmbaale na ko indi na ci ay njàngale ak yar boo xam ne bu mat sëkk la mu nekk diine joo xamante ni dafa ñëw di sàmmal nit ñi seeni intérêt di sàmmal nit ñi seeni njariñ fii ci àdduna ak bu ëllëgee yowmal qiyaama di leen fegal lépp loo xam ne yàqute la ak loraange la gu leen mën a dal ci seen diine dal leen ci seen àdduna mooy li yàlla subhaanahu gërëmal jaam ñi ne nañ ko diine woo képp ku fi dem di làmbatu leneen di ko jéem a dinawoo yàlla subhanahu wa taala ko nangul ak pertaanga lay jural ko boroomam ndax yàlla wax na ne wa man yabtaxi gayra al islaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l axirati min alxaasirin ku jël leneen di ko woo lu bokkal ak lislaam ji mu gërëmal nit ñi moom yàlla subhanahu du ko nangu te bu ëllëgee boroom dafay nekk ca ña nga xam ne ñu perte lañ abdullah ibn abbas doon wax naan yen mboolay jullit yi naka ngeen di demee ci ñi nga xam ne ñoom la yàlla joxoon téere ci leen jiitu laata yéen seenub yonent di ñëw am na ñu fi woon yàlla yabal ci ñoom ay yonent bi fi yonent yooyu jóge ñu fowee seen diine yooya fowe téere yàlla ba loola waral ci ñoom réer waral ci ñoom sànkute yàlla xamal leen seen mbir wax leen seen mbir ba ngeen xam ko naka ngeen di wëlbati ko waatee di fi wàcc téere bi nga xam ni mooy téere bi mujjee jóge ci seen borom dikkal leen di téere boo xamante ni yéen a ngi koy jàng mu set wicc dara raxu ci dara soppikuwu ko ngeen wàcc fi xam-xam boobu jógee seen boroom dikkal leen jaar ci yonente bi alayhi salatu wasalaam di dem ci ñooña di leen laaj loo xam ne jàpp ngeen ni mën ngeen caa jariñu wala mën ngeen caa jubbantikoo muy wax ne xam-xam bi leen ju jigéel bi leen dikkal jóge ci yàlla subhanahu wa taala jaar ci yonente bi alayhi salatu wasalaam war naa mën a tax ngeen bañ a dem di leen laaj lenn loo xam ne seen wàllu diine la muy wax ne te itam day maa ngi waat ci yàlla ne gisuma kenn ci ñoom muy dikk ci yéen jullit ñi di leen laaj lu mu mën a jariñoo wala lu mu mën a xam ci lu baax ci seen diine bu dee ñoom ñoo soxlawul xam-xam bu baax bu rafet bi leen yàlla jox yéen ba tax duñ leen dikkal di leen ci laaj kon yéen naka ngeen fi wàccee seen diine dem di référé wu ci ñoom xadis boobu asar boobu mi ngi ci saxiixul buxaari te loolu mooy dëgg loolu mooy li war ndax képp koo xam ne xam nga njàngalem lislaam xamin bu leer ba noppi bëggal sa bopp mucc bëggal sa bopp texe ci àdduna ak ci àllaaxira waroo fee wàcc njàngale moomu waroo fee wàcc yarub lislaam ak jàngaleem lislaam di ko wuutal di dem di jëfe leneen wala ngay référé wu ci leneen ci loolu nga war a sukkandiku loolu moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi jàngalee xeetam njàngale moo xam ne mu mat la mu ñu mën a doyloo la ba mën a am rey réussite àdduna ak àllaaxira daf leen tere ñuy dem di toppandoo ñeneen ñu bokkul ak ñoom ñi fi jiitu woon ci ay xeet ci yahud yeeg nasaraan yi ñu dem di leen toppandoo di jéem a nuroo nurulu ak ñoom di leen fekk ji ci seeni mbir loolu yonent bi alayhi salatu salaam daf koo tere woon daan na faral di digle mbir yu bari wala mu koy tere chaque fois bu koy digle wala mu koy tere da koy lëkkaleeg wax jim daan wax naan dee leen wuute ak yahud yi dee leen wuuteeg jaamikatu xërëm yi dee leen wuuteeg bokkaalekat yi def leen nangam ndax ngeen wuuteek ñoom dee leen wuuteeg xeet yi fi jiitu woon ndax xeet yi fi jiitu woon xam ngeen seen seen mbir ndax nit chance la ci moom ñu yar ko ci erreur koo xam ne daf koo jiitu jànge ci erreur ku la jiitu loolu chance la comme ñoom def nañ ay erreur ba yàq seen diine ñu ñëw ñun di nekk xeet bu mujj yàlla xamal ñu seen erreur yooyu ak seen njuumte yooyu c'était pour ñu moytandiku ko bañ cee tàbbi mais bu ñu wëlbatikoo dem di leen topp ak di leen toppandoo bay wat ci njuumte yooyu loolu lu garaaw la waaye ànd ak loolu yépp yonent bi alayhi salaatu salaam daan moytandikuloo xeetam xamaloon nañu tamit ne lu bari ci xeetam dinañ tàbbi ci loolu mu leen doon tere mooy dem di topp ñooñu nga xam ne ñoo fi jiitu woon yoroon ay téere te téere yee ñu yàq ko yàq seen diine ba nekk ci réer doon na wax ne xeetam dinañ dem di leen topp tànk ak tànk tànk ak tànk ba buñ duggoon ci pax ñu fekk leen ci loolu bi ñu ko laajee ñan la ñu du ndax yahud yeeg nasaraan yi la daf ne budul ak ñoom budul ñoom ñan la su may wax ñooñ ñooñ laa ci nam loolu nag nga xam ne moom la doon wax ne lenn ci xeetam dinañ ko def ci topp googu yamul rek ci yi feeñ ci kaw ci léeg-léeg niñ koy jàngatee mais dafa gën a xóot loolu ci yu bari yoo xam ne jullit ñi dañ ciy toppandoo xeet yooyu nga xamante ne ñoom ñoo jiitu woon seenu ñëw ak seen nekk fi moo jiitu xeetu lislaam ci mbir yoo xam ne daan nañ ko def ba loolu yàq seen diine jullit ñi wëlbatiku dem di leen ci topp ndax wax ji xadis bi mës na koo wax ci jotaay boo xam ne li ko waraloon dañoo génn màkka romb garab goo xam ne ay nit dañ cay dem di ca barkeelu di ca lonk seeni mbir di ca jéem a faj aajo yaakaar naa ne barke bu ca jóge nit ñi jël seeni seeni jumtuwaay di ko falonk bi ko ñenn ci mbooloo mi mu àndaloon mbooloo jurit ñi gisee ne ko ndax doo ñu utal garab gu mel nii ñun itam ñu fay dem di def lu mel nii comme ni ko ñuy amee yonente bi alayhi salatu wasallam dafa tudd yàlla ne lii de ay yoon la rek yoo xam ne ñi jiitu woon dañ ciy jaar ñi ñëwaat tamit jaar ci ndax li ngeen wax nii lu mel nii la ñi àndoon ak Muusa waxoon Muusa bañ ko gisee wala bañ àndeek moom gis ay nit di jaamu xërëm yor aw xërëm di ko jaamu dañ ne ko utal ñu ñun itam yàlla ju mel nii ñu koy jaamu na ko ñooña waxee ñooñu àndoon ak Moussa nañ ko waxee woon yonent yàlla Moussa yéen itam noonu ngeen ma ko waxee kon di ngeen topp yoon ya ñooñu jaaroon di ngeen ko topp nga gis ne kon méngale gi ak toppandoo gi da koo delloo ci loo xam ne sax ci wàllu diine wàllu pas-pas la jëm njuumte ci diine mu delloo ko foofu wax ne dina dem ba jullit ñi di leen roy ci yu mel noona yooyu nag boo koy xool di ko jàngat di nga ci gis yu bari ci seen doxalin yi nga xam ne moo yàq seen diine nga seetaat ne jullit ñi ñu ngi leen ci topp nekkul rek ci événement yi am feet yi ñuy dem di ci dugg di ci di ci di wala di ko def comme ñoom niñ koy defee waaye gën na yaatu loolu bokk na ci dëddu jëfe diine nit ñi ni ñu war a jëfe seen diine tënku ci mu yar leen ñu sukkandiku ci seen lépp mbir loolu nit ñi sàgganee ko topp rek àdduna loolu benn mbir la boo xam boo koy seet danga koy seetluwaat gis ko ci biir jullit ñi ñu koy jeexitaloo ci yeneen xeet yi nga xamante ne ñoom ñoo leen jiitu woon mu bokkaat ci ba léegi jël dégg-dégg bu nit ki am ci diine yamale ko rek ci lenn ci ay xeeti jaamu yàlla maanaam diine daal buñ ko waxee mooy julli diine buñ ko waxee mooy weeru koor jot nga woor boo fa jógee leneen li ci des nga def ko solo yow ni nga ko bëggee wala ni mu la neexee amul lenn ci sa wàllu yar ci sa quotidien ci sa ni ngay dundee ci loo xam di nga ci bàyyi xel sa diine boo duggee ci marché bi di jënd ak di jaay ngay bàyyi xel sa diine ci li ngay sàggu li ngay fàkku ndax lu xaraam la wala lu dagan la wa hakada ci sa lépp mbir nga tënku ci ci ne la lislaam yare loolu ñu bari ci nit ñi amuñu dégg-dégg boobu ci seen diine dégg-dégg biñ ci am mooy nodd nañ ko julli ci jàkka ji weeru koor jot na nga wóor mu bokkaat ci itam ba léegi daganal lu bari ci yoo xam ne yàlla daf koo xaraamal nit ñi di ko jëf-jëfin boo xam ne dafay dem ba mel ne dañ jàpp sax ne dafa dafa dagan wala boog ci seeni jëf ñu koy jëf-jëf lu mel ne lu dagan lu mel ne ay xeeti ñaawteef yi mel ne njaaloo naan sàngara ak caaxaan meg pomi ci yu bari yoo xam ne dafay dem nekk ci société bi ba nit ñi dañ koy mujj doyadil da doyadal ba da nga yaakaar ne nit ñi liñ ci jàpp ak bët biñ koy xoolee mooy lii nekkul lu xaram lu dagan la mu bokkaat ci itam ba léegi ci yooyu bàyyi diine ji nga xam ne mooy diine ji wër ji yàlla wàcce jox yeneen yonentam ne nañ ko jaamoo nii ku ko jaamoo nii am ngërëmam nit ñi bàyyi fi loolu dem di wër yeneen yi mbir yoo xam ni dañ koy fent wala ñu fental leen ko ñu necca di ca sonn te loolu ci li gën a mën a yàq diine bokk na ci mooy bàyyi njàngaleem yonent bi alayhi salaatu salaam te yow nee nga lu baax ak yiw rek nga bëgg yoolu yàlla nga bëgg yoolu yàlla boo ko bëggee demal seeti ko ca la mu jox yonentam bi nga xam ne moom la yebal ci nit ñi waaye dañ ko fi bàyyi nekk ci yeneen yoo xam ne euh, dañ la koy fental wala ñuy indil la ko yokkal la ko ci diine nga ne ci ne ci yooyu boo xoolee ci ñi jiitu woon itam seen diine yépp daanaka loolu la ci li ñuy def ci bari boo xoolee fan la tegu ci seen diine njàngale mu wér bu fi seeni yonent bàyyi amul yeneen nit ak seeni kàngaam ñoom ñoo leen koy fental sosal leen ko ñu ne ci ba loolu mujj muur diina ja ba diina ja dootu fi nekkati mu bokkaat yi itam foo toll di def ay cérémonie nekk ay fête yoo xam ni euh, weer wu jot daanaka am na benn fête boo xam ni nga ci dajale nit ñi mu nekk occasion nga tuddee ko fête sàngam boo xoolee calendrier yi nga xam ne mooy seeni calendrier daanaka mën nga wax chaque mois am na ay fête yoo xam ne dafay am tur fête bi ci wàllu diine lañ koy delloo mais ci cosaan amul cosaan ci diine seeni kàngam ak seeni njiit ñoo leen di fental fête yu mel noonu nga xam dañ ciy mën a dajale nit ñi gën leen mën a ñaax ca li ñu nekk gën leen mën a euh, endoctriner ci yi nga xam ne moom lañ nekk. loolu tamit jullit ñi tàbbi nañ ci bu baax a baax ci façon xeetu feet yi nga xam ne yamatuñ ci tabaski ak korite bi nga xam ne moom lañ amoon comme feet ci at mi te mu doy sëkk bu ñëwee itam yonent bi alayhi salaam jàngal nañu xamal nañu naka lañ koy feetee ci kaw lu baax ci kaw lu diggi doomu ci kaw lu dagan ak ban sens la feet boobu am par rapport ak nit ñi niñ déggee feet gis voilà ñun tam tàbbi nañ ci xeetu feet yu bëri yooyu nga xam ne lu nekk rek benn occasion bu nekk ñu defal ko feet jàpp ne feet la boo xam ne bu xewee dañ cee war a daje dañ cee war a def lii dañ cee war a def lii yooyu cosaan bi dëgg-dëgg ci toppandoo ñooñu la jóge mu bokkaat ci itam ba léegi jàkkaar ne diine moom dafay am ñoo xam ne ñooy doon nit ci diine ak ñoo xam ne duñ doon nitu diine ndax ñoom dañu am ay nit ñoo xam ne ñoom ñooy jiite seen bërëbu jaamu yàlla ñooy jiite yooyu ñooy jàngal nit ñi ñooy wax ak ñi ñooy def discours yi ñooñu ay leen di jàppe jaxasoog population bi duñ jaxasoog nit ñi dañuy beru ndax ay nit diine lañ le reste ci population bi duñu ay nit diine voilà léegi euh, déggin boobu amul ci l'islam l'islam dafa jàpp ne ñëpp ay nit diine lañ war a doon ñëpp dañ leen war a yar ci l'islam yar leen ci diine ñu koy jëf ku nekk nag ak sa ki ci yàlla baaxe jox ko cër jox ko xam-xam jox ko euh, mu am benn euh, kawe gi ci diine loolu lu yàlla di def la am na ci nit ñi ñoo xamante ni faw yàlla def leen ñu nekk ne ñoom ñooy doon kilifa yi nga xam ne ñoo jiite nit ñi nangul leen loolu jox leen cër boobu ñeneen ci des àgguñ ci niveau boobu waaye du leen def leneen lu dul nitu diine nitu diine la doon ba léegi selon kenn ku nekk ak sa niveau de responsabilité mais société bi yëpp nitu diine la ñu war a doon parce que le fekk nga ni kii nitu diine la kii du nitu diine rek ka nga ni du nitu diine moom li muy gëm ci boppam mooy ne kon moom warul sonn ci di jàng diine ak di ko gëstu ak di ko jëfe parce que moom du nitu diine kon war a def mooy moytundiku doxalin yooyu yëpp yaraat société bi yaraat population bi ci ñu xam ne làmbatu bi ak toppandoo bi day yàq ci li yàq suñ diine bokk na ci waaye nañ delluwaat ñu jàngat l'islam jàngat suñu diine jàngat naka la ñu yore léeg-léeg simplicité bi ci nekk sax ñenn ñi moo leen di pousse ci di dem di toppandoo yoo xam ne affaire folklore la ak affaire ngumbaay la ndax l'islam dafa nekk diine ju simple ci ni bu'istu bil hanifiyati samha diine ju simple la simplicité boobu léeg-léeg mooy tax nit ñu bari di bëgg di ci yokk yeneen ak di seeti ji yeneen yoo xam dañ koy yokk pour mu xaw a gën a xumb tuuti waaye xumbaay boobu jaroo ko ndax liñ ci soxla rek mooy mu yar nit ki yar société bi ñu tënku ci li nga xam ne moom la yàlla bëgg ci ñoom mu defar société boo xam ne société bu baax la bu sell la li fi nekk mooy jaamu yàlla subhanahu wa taxaw ci yàlla bëgg ak développement boo xam développement bu baax la l'islam loolu moom moo ko tax a jóg bu nit ñi xamee loolu ñu yar leen ci loolu bu ko defee yeneen ci des yëpp ñu xam ne yu ñu ci yokk la ak yu ñuy toppandoo di ko jéggaani feneen la nit ñi bàyyi ko pour ñu mën a delluwaat ci l'islam boo xam ne bu wér la yonent bi alayhi ñëwee di ko laaj naan ko wax ma ci lislaam wax joo xam ne dootuma ko laaj soxla di laaj keneen ginnaaw bu ma la ko laajee daf ko ko résumer ci ñaari mbir ci li lay wan simplicité bi ñaari mbir yi mooy waxal ne gëm naa yàlla ginnaaw bi nga tënku ci njub benn bu njëkk bi mooy ngëm yàlla gu wér nit ki fexe ba moytundiku bépp xeetu pas-pas ci ay xeetu bokkaale ak mbir yoo xam day yàq pas-pasam di ko tilimal mu jéema a fexe yar boppam ci loolu fóot sa pas xam ne mooy sa fondement wu diine jafe na nga mën a am diine joo xam ne ju mucc ayib lay doon pas-pasu doomu aadama ndax xol moom mooy conditionné yeneen cër yépp te pas-pas bi ci xol bi lay sax at taqwa haahuna at taqwa haahuna la yonente bi alayhi salatu wasalaam doon wax ak li yone yàlla waxoon ne walamma yadxulu l imaanu fi qulubikum fi qulubihim wala fi qulubikum bi muy wax araab yi daf ne ngëm yàlla duggagul ci seeni xol xol la tudd kon muy wane ne mooy place bi donte yeneen cër yi dañ ciy bokk waaye foofu mooy cosaan bi loolu moo tax kon nit ki pas-pas boobu na jéem a fexe defar ko mu nekk lu sell bu fekkee bëgg na diineem amal ko njariñ waaye bu pas-pas ba amee lu yàqu loo tabax ci lu yàqu daf du yàqu du jub du baax kon fondement bi nekk lu mucc ayib moo tax yonente bi alayhi salaam jiital ko ne ko qul amantu billah ginnaaw bi istiqaama bi nit ki jub ci ay jëfam jub ci ay jikkoom jub jub ci nekk nekkinam tënku ci njub ci jëfe diinam pratiquer diinam kémtalaay kàttanam pratiquer ak jëfe boo xam ne itam bu mucc ayib la ci na tegu ci xam boo xam ne bu leer la bañ a tegu ci làmbatu ak ci toppandoo tegu ci xam-xam bu leer bu lay mën a dëppale ak li yàlla bëgg ci yow ndax nit ki li muy jëf ba bariwaay beeg nit ñi di ko jëf loolu amu ci solo li am solo mooy nga lijjante ba xam ndax lii ngay def loolu la yàlla bëgg ci yow wala déet li yàlla subhanahu wa taala waxoon qul hal nunabbi'ukum bil axsarin a'mala alladina dalla saayuhum fi lxayaati dunya wa hum yaxsabuuna annahum yuxsinuuna sunaa mooy nit ki di sànku ba noppi yaakaar ni li ngay def lu baax la yaakaar ni li ngay def lu baax la loolu pertaange weesuwu ko moo tax kon di gëstu di jàng ba xam ne li ngay def ci xam-xam nga ko teg bu leer xam-xam bi mooy teg teg nga ko ci alxuraan yàlla bi ci tekkin bu leer ak sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam kon lii la yàlla bëgg ci yow nga góorgóorlu ci loolu kon fexe ba jëf ji topp ci ginnaaw bu ngëm gi mucc ayib jëf joo xam nit ki da koy sellal di def te yàlla tax bañ cee eh, bëgg xool bëgg-bëgg nit ñi ak eh, ndax léeg-léeg yi nit ñi di xool ci liñ tuddee xuduudu nafs dafa bëri du rek ci poñetum àdduna bi ak am amu àdduna bi waaye yu bari ci yoo xam ne day neex ci bakkanu nit ki ci li muy def nit ki daf koy daf daf koy giital yitteel ko ci yëfam mooy shahawaat yi nga xam ne moom la ku mel alimaam ibnu rajab di wax a ashahawaatul jaliya wal xafiya yooyu nit ki fexe yar ci boppam ba soril ko jëfam dëppale ko ak njàngalem yonente bi alayhi salatu góor góorgóorlu ci loolu kon ñaari mbir yooyu nañ ci góor góorgóorlu def suñ kémtalaay kàttan yeneen ci def yépp ñoo xam ne luy yàq la yuñ ciy dolli la yoo xamante ni day soxal nit ñi yitteel leen ba ñu fàtte seen diine sori leen seen diine waaye bokkul ci lislaam yàlla nañu yàlla subhanahu wa taala defal dégg ak topp rabbana atina fi dunya xasana wa fi alaxirati xasana wa qina adab annar rabbana la tuzig qulubana bada id hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka anta alwahab allahuma aslix lana diinana alladi huwa ismatu amrina wa aslix lana dunyana allati fiha maashuna wa aslix lana axiratana allati ilayha